wasallam noo ngi baal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla na yàlla boole jéggal mu mel ne dañoo matal sëkk fukki weer ak yaar koo xam ne mu ngi tàmbalewoon woon ab limam ci weeru janwa euh, janvier fukki weer ak nag su jeexee yaar xew na ca nit ki dolliku na ay at lu mënoon am ci at mel ni dolliku na ca waaye na ko wóor ne nag am na yit at mu yées ci at yi mu fi waroon a am ci dundam am na ñoo xam ne bu bis ba agsee bis bi ñuy fàttaliku fukki weer ak yaar yuñ dund dangay ngay dégg ñu naan bis bu dellusi moo neex dañoo war di wax ne bis bu dellusi moo tiis ndax li ko tàmbalee suba ginnaaw def nga fi mu at loo mënoon danga dox ci fas yéene koo tële mu neex la mu naqari la لولي وقسم برملة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وسيبة كن بفكر أكيار جالة آه، كان كونك من دك ووتا يباري يباري دي ووتا يباري ويجل بنفخ بابوم تك تنكم fu ñuy wootee lu xaraam walla muy bokk ci ña koy woote ndax kat fépp foo xam ne nit bëggul dee fekk ko fa bu mu fa dem kenn xamut kañ lay dee kenn xamut fu muy dee loolu waxi suñu borom la yim wax ne moo ko téel boppam moom daal boolewu ca kenn fi nit kii di dee ba ca la bokk قيل لبس بنج إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كن بوك لوتي باري باري أبجلت نراني تدكلو تيوني مل نعلم ينتبه صلى الله عليه وسلم mi nga xam ne amul benn xew-xew bu ma sa am mu ne cell selaw ca waaye daa dëkke woon di wax ak nit ñi di leen laabiire du leen ne def leen teg ca ab yar waaye daana waxe waxiinu su ma doon yéena def nangam ak nangam te moom boo xoolee ca lay nekk loolu mooy laabiire daana ko def ba ñi ko gënoon a jege mokkal ci ay waxam lu bari loo xam ne ba fii mu nekk nii kenn nit ku ko peeg man ko mokkal nit ñi mokkal alxuraan yombul kon musta selaw waaye bis ñëw na mu wax ak mbooloo ma ne leen ana kuy ñëw ma wax ko baat yi may bëgg a wax walla waat yi may bëgg a wax bu fi jógee mu jëfe jiku su ko wóoree du ko mën a jëfe ji rikk waaye na koy wax keneen koo xam ne moom dana ko jëfe ji abu hurayrata ne ko maa ngi nii yaa rasulallah wax ma ko danaa ko jëfe danaa ko jotali nit mu té nee na mu téye ci loxoom ne ko juróomi yafa ngi nii yoo xam ne foo jëm na nga ko fa jëme te koy waxalit su waxtaan ba bëggee yàgg tuuti na nga ko ca boole mu yóbbaale ko ne ko moytul fépp fu lu xaraam nekk soo ko moytoo ba ñépp xam ne diw deesu ko mas a gis ci fu ñuy wooteelu xaraam sakkantuma di ca bokk nee na su boobaa kenn daqu laa jaamu yàlla ittaqil maxaarima takun aabuda naas léeg-léeg nag nit woote loo xam ne jëmmi woote ba ci boppam mën naa bañ a xaraam waaye yami àndal moo tax ab jisu bari ko moytu waaye ñaareel ba mooy nee na ko lépp lu la yàlla séddi jàpp ca te sant ko te gërëm ko su boobaa kenn ëppaleetu la وارضى بما خصم الله لك تكن أغنى الناس واي فخل بس بكنو بو سيدتك جام مك دي جوك تنغا ورالك سبوا كان جنت لا جم يلا وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا مسلم نك برينا وايلو تخا dugg ci daaira mu'min jar na lu nekk yàlla moo ne woon yonent bi qaalat al aaraabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna li tax rafetal ci say dëkkandoo ba kenn du yëkkati ci litug jërëm ngir yow jar ko yàlla dafa dendale dëkkandoo ak parce parce bi ñuy fas ci moom yonent bee ko wax man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri fal fala yuudi jaara wal fal yuxsin ila jaar te am na woote yoo xam ne junj naa ne mën naa bañ a xaraam waaye yami àndal moo ko cay dugal moo ko jaarale ci yoon wi jëm ci lu xaraam waaye loola lor say dëkkandoo da cay bokk la jël leen bit ba ku wéré di sax duutu am jàmm ku bëgg a déyaleeg borom bi doonte lu waay def mu dégg ko waaye mën naa am taswis taswis mooy fatanxal ko ba du ko tàpp kon lépp luy tax sa dëkkandoo ne ak nuru nuuru jéem surtout jéem jóg dara jëru ko ci ab jot waaye nee na koy it del bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp su boobaa danga dugg ci daayira bu ñuy wax daayirob muslimin wa ahiba linnaasi ma tuhibu li nafsika takun musliman eh, muy yent yëf waaye ba ko juróomeel mooy dee leen wàññi reej ree mooy mbég rek mbég mu ëpp mbég mu ëpp nag la koy waral mën naa doon lu xaraam ndax bokk yi néew na fu ñuy waxtaanee aljanna ak aw neex itam ak nees di def ba dem ca nit ki am xelam dal ci ne moom kon yoon yi mu jaar moom la ba mu ree ca néew na waaye dañuy wax xam ne du am bopp amut cat ñëpp di tax tax amna ño xamni sax moy seen liggey reelo nit ñi lañuy wax ni mom la doon liggey léeg la ñu faatu ñene ak xamal non reelo nit ñi fu mu nek kenn du ñep lolu musibe la yonent mo na won woon de leen reelu néew néewal leen seeni ree ndax ree ju bari day rayab xol wala tuksiri daxika fa inna addaxika fa inna kasrata addaxiki tumitul qalb alquran lay leeral fal yadxaku qalilan wal yabku kathira am na fi muy waxee ne su ngeen xamoon li ma xam moom yonent bi mooy wax sallallahu alayhi wa sallam da reelu néew di jooy fu ngeen toll te bàyyi caaxaan yi ngeen nekk ak lu ne nga wàlli ko wàlli foo xam ne fii buñ la gisul duñ la laajte nga fexe ba dem dangaa wàlli waaye mënoon nga faa ñàkk ba di fa jële bàkkaam ndax kat jaamu yàlla ba ci gën am solo muy bu njëkk ba mooy def ndigalul suñu borom jaarale ko ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko ñaareel su ameem ñaareel mooy bàyyi lu yàlla tere ak fu mu ne bu fa kenn jëm jaarale ko ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee jëfee ndigal mooy topp ci yiñ na nañ ko def bàyyi xaraam mooy lu xaraam ak fu ñu koy defee fu nekk ku tënku ci jaamu yàlla fa mu joxaj fexe ba du ñu ko gis wala ñu du ko dégg fu ñuy defee lu xaraam sekkantuma mooy bokk ci ña koy woote foofu kat ku fa nekk mën naa dugg ci ñi suñu borom di wax di boole ci almuttaquun mooy fi wax ci alquran ne ñi nga xam ne dañoo fab yàlla féeteeg moom yàlla féeteeg ñoom ñoo féete wa yàlla yàlla féete ak ñoom duñ am njàqare adduna duñ am njàqare àllaaxira rawati njàqare àllaaxira gi nga xam ne rek at mu ñëw dañ koy gën a jege ñu mel ne dañ koo laaj loolu ñooñu ñooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne bii ñu nekkee fii ci adduna bàyyi woon nañ seen bopp ak yàlla defoon nañ istislaam dugg ci lislaam waaye nekkoon nañ ci tënkoon nañ seen bopp tam ci iman gu wér te iman gu wér ku ci tënku nag mooy koo xam ne fu mu toll mi ngi moytu fu yàlla ne bu fa kenn jëm ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun bokk yi di liggéey reeloo nit ak di leen bëggal ak garaaw ku jël yoon woowu bàyyi na lu bari lu mu waroon def ci lu dox digganteem ak boroomam ndax suñu borom foo folewut ku fexe ba ubbi ab xolam luy bëggal xol ba kep kep kep lay wër ak ñay bëggal xol yi ñoom itam kuñ bëggal ab xolam dong dong dong la ñuy wër booba xol tàmbali naa dee te dana jafee dekkalaat waaye xol buy dund dëgg dëgg mooy koo xam ne bokk yi bu ree ren ji balaa dé balaa reewaat muy déggal déwén te la koy reeloo ree yàlla ko booleeg nit da koy saf rek ree ko waaye di wuti foo xam ne dañ lay reeloo moo di liggéey reeloo nit ñooyam képp ndax duñ wax lu baax duñ ko fa wax duñ ko fa def mën naa am duñ ko fa def duñ ko fa wax ndax junju naa ne léegi lii reeloo nit li ci ëpp dunul aljanna nim neex rek nam mel موم مو خلاط مي غور غور لو مان خلات نا سي يار مو نه اه كون دي فوفو دانا باخ واي نك با واجي دافاي نانغام بوكو واجي تونتو نانغام نيبي تخ تخي بوكي اتقوا المحارم فوفو لاي تامبلي فخبا فوي ديم نادون فوي جاريño ndax kat at mu jall lolu delu ci wat te nit ki la mënoon ci atum at mi weesu da koy tàmbalee tële ci at yi di ñëw ci kanam moo tax saabu bu tey lañuy wax ne moo ci mujj ci at moom waaye ku fanaan ci yenn barab yu bari yu ñuy wootee bu suba ca tëkkusaan na xool ba xam lu mu fa jële ndax xool na fa lu mu warta xool waaw waaw ah kay wóor na ni dana fa xool lu mu warta xool ndax kenn bàyyiwu kenn waajalu fa ñàkk xoolaante laal na ko fa kay la ñuy wax wala wax na ko fa te xool mooy ubbi bunt yëpp sooy su ubbi koo rek xel tàmbali naa ràbb su boobaa jël ci ay yoxo laal tàmbali dox ak tànk topp sax yàlla na ci yàlla musal moo tax at mu jeex dañoo waroon di wax ne moo tiis bu xamee ñaata nit ñoo faatu ci at moom mënoon na caa bokk ñaataa ci ami gàllankoor na caa bokk ñaataa ca wut kër kër at mi te mënuñoo am dara war naa xool boppam waaye mii di jublu si mënut a gëm kenn wala mu wóolu kenn wala mu yaakaar kenn ba kooka man ko ne bu fukki weer yaar di mataat da nga ko fekk kawam loolu moom nit mën nay wax ku mu wóola ku mu yaakaar ku mu gëm waaye mu munta teg loxoom ci alxuraan waat bu dee jullit la ne diw mën na ma garantil garanti laa ko mën a waxee ñu xam ko mooy war loolu ne fukki weer yaar da ko fekk am na lu mat a def tuub moo gën a xam boppam ñëpp fexe ba lu ko wóor ne rëcc rëcc la bu ko rëcc fukki wedeeg yaar ci biir moo xam lu mu siq jaami yàlla yi wala lu mu siq yàlla su dee jaam yàlla kenn ku ne mu dem ba ca moom ne ko jàpp loxo baal ma àq def naa la nangam ak nangam li wax koy tiis tiis nag ñàkk koo wax moo yées ndax fa ko koo koy soxlaa doo am loo ko jox lu ci lu baaxu néew li nga amoon wala ñu yàlla ci ay bakkaaram moom ëllëg بره والوك سنو بروم نينا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مكن دم دم بان لم دف ري ني سي اتمي با يالا مونو آه، كو جيكب ديت نتو ndax kat bokki euh al maut la ta'tikum illa baghta moy ken xewu fum koy def lolay bet mom ken mënu ko wajal ndax nit sëgg na di julli sujjóot farfaatu ndaw mujj ku rafet nit yor na kaamil alxuraan di ko jàng teg kaamil bi faatu waaye am na it ñeneen ñu leneen fekk ñu fekk feneen ñu faatoo fa ñu fab suuli kon boog ab jullit saa su ne nay xool fu muy teg ab tànkam tey xool ñiy woote ba xam fa mu fay wuy ji fu nekk bëgg na dee fekk ndox fekk ko fa waaw wala déet ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne kat kenn ku ci nekk bu yàlla tàmbali bu yàlla tàmbalee rek le di not ay mbiram ma ngi koy tàmbalee ca lam ko fekk ba muy faa yàlla na ñu fekk ci ndigalam yàlla na ñu fekk ca la ko gënal yàlla na ñu yàlla musal ba faw ci fu mu tere te ñaan suñu borom fukki weer ak yaar yi ñëw fekk nu fi ñun ñëpp tam ànd ko wér te wér googee it yàlla noonu yàlla dimbali xiir nu ko ci xiir nu ko ci boppam bañ mën ko koo jaamuwaat yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin